woyofal bi pour man fu mu toll nii nañu wax nañu wax nit ñi lu am woyofal bi yow depuis kañ lañ ko fi def ëppul 15 ans ëpp na 15 ans bi ñu ko fi defee da nga mës a dégg li ñu lay wax nii lu tax ñu bàyyi ba tey ñu koy ñu ciy door a communiquer ah. ba pare loolu li ñuy wax nii yenn wul maanaa munoo ñëw yow bu bu fekk bu fekkee c'était c'était les mêmes taxes qui s'appliquaient lu tax yow yaa yaa y a un an li nga daan jënd même boo même boo jëndaatee du wàññeeku

boo demee Thiès bu fekkee da nga daal clim wala nga nekk si embouteillage wala nga jàdd fenn 10 000 yi jeex na sa sa carburant jeex na ñoom 10 10 yi ñu waraloo woon ak yow jaay nañ la ko 10 litres yi. par contre boo taxawaatee si beneen boo ne leen jaay ba duñ la ne sànq jëndoon nga lii litre euh, euh, donc da xaar ba mois prochain 9 litres lañ lay jaay ci 10 000 yi. 10 litres lañ lay jaayaat. bien sûr comprendre. comprendre comprendre li ma la wax. mooy mooy loolu dañ ci waroon lu tax lu tax lu tax quand ils ont installé ils ne l'ont pas dit aux Sénégalais. pire première tranche deuxième tranche yooyu ñuy wax. fii gis nga xoolal Sénégal déedéet déedéet déedéet danga may may ma wax danga may may ma wax danga may may ma wax loolu on est d' accord gis nga commission bi bu fi ñëwati commission bi man man seen bopp naa je suis d' accord et allez voir la commission c' était prévu ils avaient pas de président. le président a été installé le jour où j'ai la pétition gënu ma xam ne ngeen def yéen da defe ne yéen a ma gën a muus yéen xam nga si lan ngeen ma mën a réeral fi mu toll nii ci ay tranche ay index parce que aucun sénégalais ne comprend ça bu ngeen bëggee réeral sénégalais yi foofu ngeen leen di jaaral mais man mënu leen ma réeral gis nga aujourd'hui woyofal bi pire dañ koy imposer nit ñi aujourd'hui kenn mënatul am compteur classique woyofal dañuy ñëw buddi sa concours bu ñu la coupé bu ñu buddee sa concours bu ñu koy delloosi duñu la delloosi sa compteur waaye fan lañ lay indil imposé ko dans le nord du pays dans le sud dans le centre à Dakar ici en banlieue ici à la cité Kër Damel am na ñoo xam ne dañuy ñëw buddi seen ko ñu wax ñoo xam ne ils sont en règle ñu buddi seen compteur sampal leen waaye fal par la force dans la commune rurale de Ronk fu ñu ko teg o gis nga Sénélec dañu yàgg nekk ak dictature ak sénégalais yi parce que c' est un monopole. monopole bi la. c' est un monopole te loolu nag moo fi jar gis nga ñun suñu papa dañu leen daan indil ay factures estimées ñuy fay monsieur Albert euh, monsieur le choix gars dañ doon fay léegi nag suñu génération papa ak ñun suñu génération ñoo ñoo wute gis nga aujourd'hui fi mu toll nii nii nii nii nii. lu ngeen fi def lu dul yoon dañ koy wax parce que ñun xamuñu état yéen la ñu xam man bu ma signé woon bu ma signé woon contrat ak Macky Sall ba may def sama sama sama sama euh, kii contrat électricité kon ci moom laay dem hmm. yéen laa signéel yéen laay waxal kama war a waxal aussi mooy commission de régulation bi dinañ si wax il faut ngeen bàyyi aujourd'hui di lëndëmal nit ñi aujourd'hui Maria man effectivement quand tu regardes les factures tu vois que ñoom moom prix yi mu ñoo si nekk mais Maria yow tey yow di di di relever est-ce que na la fay fekk. gis nga releveur bi kan moo gis releveur bi. boo leen wax nee la ñu bëgg a bëgguñu déranger c'est ce que le gars a dit. gis xoolal man aw ma aujourd'hui aujourd'hui à l'ère des nouvelles technologies à l'ère des nouvelles technologies war nañu am système boo xam ne bu ñu ñëwee ne la aujourd'hui mercredi 18 octobre à midi on est passé chez chez vous madame Pell on a relevé l'index est là envoyé la SMS bu ko defee toi tu as un instrument de de de contrôle. Mhm. même bu ñu relevé yow nga fekkee ko taxaw. yow ban ban ban preuve nga am ne aujourd'hui bu ñu demee ñoom bu ñuy bu ñuy retranscrire seen système loolu lañ dugal c'est un système opaque avec lequel fonctionne la Sénélec depuis longtemps pour s'en mettre plein les poches sur le dos des Sénégalais te loolu duñ ko nangu. Mm. dernière chose woyofal bi aujourd'hui boo si trompé wa ñàkk nga sa xaalis. tey booy chargé booy chargé sa compteur nga juum chargé le Birama ñàkk nga sa xaalis. et pour en revenir boo la ooyee dañu leen ne loolu amul annulation contrat euh, contrat bi Birama Camara moo ko signé xaaral ñu jox la numéro nga woo ko loolu fu ñu ko teg violation de données à caractère personnel ah bu weesoo bu wee bu bu weesoo nag. boo bëggee fay boo bëgg boo bu weesoo nag facture yi bu ñu la koy indil ñu bàyyi ba mu ba mu des ñaari fan wala des fois sax dañu lay indil facture fekk date échéance bi passé na. Mm. ñu indil la ko. boo bañ ba ñu casé ci sociaux yi daaw lu ñu wax dem leen sur les plate sur les plateformes de paiement de nos partenaires ngeen xool violation de données à caractère personnel on n'a pas signé de contrat avec ces gens-là ils n'ont pas le droit d'avoir accès à nos factures avant nous d'accord